mbok yenté jaajëf mbokki internetu Dakaractu di am mbégte di ànd ak yéen ci seen rubrique découverte alpinisme nak métier la wala mën nané ne sport la bo xamanténi ni nit ki kay def dañuy xol montagne manam tundu yi ëmb tangor mu di ci yéeg Eh, Lol nak dañuy faral di gis ni tubaab yi ñoo ëpp luñ koy def waaye mën nañ jàpp ne ni am nañ benn doom Sénégal eh, koo xamante ne ni fii la juddoo daanaka moom mooy kenn sax kiñ ci ràññeetle koo xamante ni mi ngi def boobule sport moom nag mi ngi tudd Mouhamed Rassoul tunkara eh, juddoo fii ci Géejawaay am léegi lu tolloog ñett fukki at ak ñaar moom nag doom la ci ki nga xamante ni moo di doyen Tounkara benn nit koo xam ne ràññeel nañ ko lool ci éducation ak it rakk la ci ki nga xamante ni moo di Tunkara doon journaliste bu mag ci benn organe bu ñu ràññee fii mu Mohamed Rasoul Tunkara nag moom euh, mi ngi euh, def formation ba nekk ingénieur en informatique ci la benn entreprise euh, woo ko fële ca France mu daal di dem tukki ngir rek mun a def boobu boobule liggéey waaye bi mu demee nag mel na ni nekk na ci liggéey bi waaye am na leneen loo xamante ni mu nekkoon bëgg-bëggam ci ginnaaw mu di sport boobu ñu naan alpinisme loolu waral mu daal di tàmbalee dox ay jéego di gravir ay montagnes maanaam tudd yi nga xamante ni ñoo ëmb tàngoor bokk na si gën a kawe sax yoo xam ne ñi ngi ci àdduna bi mu di ko wër rek ngir teg fa li nga xam ne moo di drapeau Sénégal. moom nag daanaka bi mu tàmbalee loolu yëpp ci atum 2022 bi bokk na ci li mu gën a fës. maanaam ci euh, boobule sport ndax tey ay jéego yu bëri def na ko def na ci loo xamante ni ñu bëri euh, euh, tourné nañu wëlbati ko ci moom di ko bàyyi xel. ci at boobu nag lu mu jot a def lépp bokk na ci yéeg montagne bi nga xam ne moo gën a kawe ca Europe te ñu naan ko Mont Blanc. moom mi ngi fa yéeg ci eh, juillet 2022 teg fa nataalu drapeau Sénégal euh, monté avant loolu nag ci février 2022 bi moom Rasoul jotoon na yéeg fi nga xamante ni moo di ci sommet Kilimanjaro nekk fële ca Tanzanie doon euh, loo xamante ni mi ngi tolloog 5895 mètres euh, wuuteeg Mont Blanc bi mi nga mi ngi 4809 mètres ci octobre 2022 bi nag moom na fi nga xamante ni moo Maroc itam montagne boo xam montagne Afrique du Nord bi ci bëgg-bëggam nag mu dem Himalaya fële nga xam Don montagne de xamné mi ngi def 8849 mètres ko def euh, dina ñëwaat tuuti ci lan moo waral def ko waaye euh, bu mujj bi nga def mètres la moom euh, commencé woon grimper agent bi nga xamante ni nii moo koy protégé waaye bi mu demee ba jublu nga xam ne dese wu ko lu dul deux mètres pour mu egg ci la daal di dëpp ndaxte agent boobu dafa defoon malaise moom nag ngorom may ko woon mu di woon ginnaaw ñooñu ngir dem topp bëgg-bëggam foofu nag mën nañu fàttalek ni rasul nag li muy jël risque la ndax tey bakkanam ci xottu gerte lay nekk dina yéeg foo xam ne kawe na dina jafe pour nooyi ak it sedd na lool ndaxte bu mujj bi nga xamante ni foofu la demoon russe mi ngi nekkoon moins de cinquante degré Celsius waaw mel na ni kon sedd na trop moom Rassoul nag kenn xaw nañ ko géej a dégg tuuti euh, bi ñu jokkee agent nag moom lim ñu xamal mooy euh, Rassoul Euh, loolu muy def budget la dafay laaj koppar gu bëri ndax dina jël avion dem si ay dëkk dem si ay leneen ak leneen te moom amul sponsor amul dara ci poche am la lépp di jóge donte sax metti na lool moom agent am ñaawlu na li nga xamante ni nguuru Sénégal euh, jàppale ko ndax daanaka fépp fu mu dem rek drapeau Sénégal lay représenté wane ni Sénégal am na njàmbaarte am na gor am na ñu ñeme am na ñoo xamante ni lépp lu tubaab yi di def rek war nañ ko war a mën a def donc moom mu jàpp ne ni war nañ ko soutenir partenaires yi war nañ ko jege ngir rek ko dooleel ci li nga xamante ne nii mi ngi koy def. mun nañ leen fàttali nag ni euh, Rasoul euh, donte sax nëbbu na ci état du Sénégal mel na ni ne ñu bëri am na ñu koy bàyyi xel ndaxte bokk na ci ñu ñu nommé ambassadeur Jeux olympiques de la jeunesse 2026 kaw ow na donc euh, loolu mu doon loo xamante ni ni mbégte la pour Rassoul ak njabootam. mbokki internet yi loolu lañ leen indiloon ñu leen di laaj nag ci biir commentaire bu dee am ngeen ay sport boo xamante ne moom ngeen bëgg seen sport préféré ngeen wax ñu si ñu mën si waxtaanee tuuti.